amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen ñu ñu tawlu ci 5M TV Sénégal jërë ngeen jëf. ngeen jëf ci ànd bi xibaar yi dañuy dem ca Ndar Géej ci Ousmane Sonko demoon na fa Mansour Faye daal di koy dalal mooy meeru dëkk ba lu jëm ci tukki nemmeeku biñ doon amal. ci lu ñeel kon initiative bi nga xam ni teg nañu ko muy seetal sama réew waxtaan wi nga xam ni kon séq na ko ak suñu naataango yi di waa l'Observateur moom Mansour Faye daal dinay xam ne ni fi mu nekk ni mu ni moom nag xamuñu kan rek moo jiite réewu Sénégal Ousmane Sonko sonkolo wala Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mi fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk wàllu infrastructure daal di nay addu ci xalaatam lu ñeel kon mu ni euh, danger bi nga xam ni Sénégal nekkee na ko ndax tey ji xamuñu fan la ñuy taxaw Ousmane Sonko itam ñëw indi ay mënaasam mu ni kon loolee ragalu ko benn yoon moom Mansour Faye sax joxe na xalaatam itam ci 100 jours yi nga xam ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na ko ci boppu réew mi maanaam téeméeri fan yi nga xam ni am na ko fi boobook léegi mu jàpp ni kon mbir mi catastrophique la maanaam mbir mu doy waar kon nañuy dund mën nañu jàpp ni seen nguur daal moo gën a doy waar nguur yi fi paase kon moom loole mooy xalaatam wax na itam ci lu ñeel wàllu mbas mi fi amoon koppar yi nga xam ni tuumal nañu ko ni kon moo ko jël te Aminata daal di koy wax ba mu yónnee ko sax ab plainte moom Mansour Faye mu ni loolu yépp kon dana ko topp waaye dañu jàpp ni kon moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye lam fi defagum daal ay ŋàññi donc rek lañu ko mën a wax ndax gisuñu benn politique boo xam ne rek teg na ko fii rawatina lu jëm nag ci wàllum xëy mi ndax mu ni loole yaakaaroon nañu saafara lañ ci indi waaye ba tey ay jafe-jafe rek lañ ci am.